pertefa pertefa ñoo ngi lay ziar. maa ngi lay ziar pour Gueweul. ñun ñëpp tey ci monu làmb lañu bokk dëgg la initiative bi ngeen jël euh, pour mbëri ah waaye wolof dafa ni benn lay du pak te Tapha Gueye est devenu nekkatul n'importe qui dans ce euh, problème mu ci moment bi mu xewee nii ak professionnalisme bi ñu xam ne ci waa Fass est-ce que mënu woon a ñàkk ba combat Papa Sow Fass. ah non vraiment ngeen baal ma euh, j'ai déjà dit que le cas de Papa Sow du ma wax je suis venu pour aider les lutteurs ñu mën a faju loolu moo ëpp a ñu faju ku ci gaañu faju seetlu ngeen ne. mbër dañuy gaañu seen carrière jeex duñu mën a bëreeti mbër yi dañu am opération opération di coûter un million duñ ko mën a faju seen carrière dem fa gis nga ne suñu grand frère suñu nijaay yi doon bëri ci làmb ji loolu rëccuñu ñu am ji bu ñu amee carte boobu chance day nekk ñoom pour ñu mën a faju te duñ ci am coono ndax état daf lay jël en charge ak million bu nekk deux cent mille nga ci fay cent mille franc bu nekk yaa ngi vingt mille franc loolu ku ko am da nga koy jël man ci yooyu laay dox mais doxuma ci ay vraiment moom li mu jot wax lépp amoo loo ci tontu amoo loo ci wax. c'est pas possible maanaam kon mais mais kon mën nañu li mu wax dëgg la. bàyyi du tontu doomam.